asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokki subulul huda wa rashad ñoo ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen balu xaq di leen balu xaq di sàkku ci yéen itam ngeen bal nu xaq bu baax a baax mu mel ni dañuy delsiwaat ak fi ñu yemoon ak Muhammadul Busri fi ñu ak moom ci burdatul madix bi tey nag mi ngi jàng ak ñun alfaslu assaadis faslu juróom-benneel ba nga xam ne day wax ci tedd ngay alquran ak tagg goo xam ne tagg na ko alquran mu mel ni ba mu ne bëxër ñett nag di jublu ci tagg alquran mu mel ni ñu kaa sëñ bi nag matu ko ndax alquran moom rafet na ba pare nii ki naaka jële ko fi loo ko fi wax am nañu ko xam ne dee daani gaa di ko jàpp muy fipp daani wa wasfi ayatin lahu zaharat zuhura naaril qira laylan ala alami ma <laughs> melal ay aaya ay màndarga ay kéemaan yoo xam ne ay mucjisa yoo xam ne alquran ci mucjisa yi la bokk daanaka rek am na yoo xam ne sax nag nga bàyyi am na téere yoo xam ne fii duñ ko def bunt dañuy comme buntu mucjisa yi la tolloon rek am ñoo xam ne koy def xëy yegg noonu rek mu jàll gis naa ci téere yu koy doxalee noonu ndax aay yi muy bëgg a wax ak tag gi muy tagg alquran ci mucjisa yi la bokk comme ni mu doon li mucjisa yooyu rek xay nag li mu wax ci alquran lu bëree bari moo tax xay na ñu ko def euh, buntu foofu aay yi nga xam ne dañoo feeñ ay kéemaanam dañoo feeñ dang dang dàng kom feeñuk sawaraw berndeel xam nga arab yi suñ aman alal nekk ci borom alal ji ñëppuy joxoñ pour ñu xam ne yow xam nga alal ji ñëppuy joxoñ non seulement yomuloo ci am alal ji waaye dañ cee tabe baax si ba mel ni xaatim taa yi mi nga xam ne moo gàdd woon drapeau teraanga ci jamono dañ daan dem ci benn montagne bu kawe rendi lu seen ay giléem seen ay xar seen ay bëy seen ay nag di ko wàjjulu pour voyageurs yi nga xam ne ñooy voyage si guddi gi ku fa romb xam ne fële ku fa jaar daa reer daa teg it leneen ca gannaaw reer ba ci xeeti ay naan ay xeeti nangam nangam ndeysaan ba xaatin taa yi doon na wax benn mbindaanam ci surgam noonu ko aw qit fa inna layla laylu xurrin wa riixu yaa muuqidu riixu harrin in jalabta dayfan fa anta xurrun <laughs> diggal ma lii nee na ko daal taal ndax guddi gi dafa sedd ngelaw lii nag muy joxe dafa mel ni ngelaw luy xiir boo fexe ba genn gan ñëw lekk tey ci sa bernde bii bis ni ki te yaa moom sa bopp waaye noonu itam tabaarakallaahu ñu daan taggee ñu am alal ñi noonu lañ daan ŋàññee koo xam ne dafa euh, euh, téye loxoom ba mel ni ñi muy bañ a wax ñoo xam ne am nañu waaye dañu naya naya naya naya nay ba seen loxo yaa nga dagg ci seen bagg ya benn waa ji leen xas nag daan xawmun iza akalu axfaw kalaamahum loolu de xanaa xam naa xaw nuru taalibe yi nga xam ne lekk yóbbu leen ci daara ji nga xam ne bu ñuy lekk dañuy dëpp daal ak def nangam nangam ak saan ay maa ngi fàttaliku ba ñu nekkee ci daara ji fee ci sëyee ba gars yi bu ñuy jàng guddi yow bu la yàlla natoo nga nekk ci kaw boo jekkee jékki gars yi jàngatuñ rek nga dégg baat yëpp goow kenn déggatoo kenn nekk baat yëpp na silaw li lay xamal ne gaa yaa gis dara daal mooy ni gaa yi di ñetti ñettee <laughs> escalier yi pour wàcc kenn musul gis loolu nee na aw nit la ñoo xam ne suñuy lekk dañuy nëbbu seen ay baat dégg nga bëgguñoo wax ca kaw kenn du dégg seen nga xam ne dañuy wàcc seen baat yi yemuñ ca waaye wastaw saqu biritajil baabi wa daari <laughs> nga xam ne dañuy yeew bunt yi ba mu dëgër këcc këcc këcc këcc këcc këcc këcc caabi lawbe ko wala ñu korosé ko kànnaare ko ba pare wàcce seen baat ñoom kay buñ ko caabi wul ba pare sax bu leen neexee ñu coow waaye loolu doyu leen dañu ko <laughs> caabi la ba pare kànnaare ko loke ko def ko lu ne dégg nga def ko lu ne ba pare door di door di commencé nag wax ndànk nag <laughs> waaye bu mel ni gan gi sant Juuf ñëw fekk ñu mel noonu nuyoo nuyoo kenn faale yu ko fekk gaa yi ngi wër bool bu ne ah yéen a ngi def lu ma mën euh, ñi ngi jéggalu ci dagg-dagg boobu la nga xam ne moo dagg lañu doon wax waaye daal nee saa boo déggee xaj yi baw seen gan ña ñu saaga seen yaay yi ne seen yaay yi saw ci kaw sawara si <laughs> bi bay bu togg gi ñor bu nangam nangam ñooñu soxor nañu doy nañu waar nee na daa nii bàyyi ma wa was fii ak sama melal gi may melal aayaatin ay aaya ay mucjisa lahu yooyu ñeel nañu sallallahu alayhi wa sallam zaharat yooyu feeñ nañu lahu ñeel sallallahu alayhi wa sallam zuhura naaril qiraa comme feeñuk sawaraw berndeel boo xam ne dafa nekk ala alamin ala alami ci kaw montagne nga xam ne fu waay toll rek seen ko neen alquran daal noonu la fésee te yaakaar naa ne sikk amu ci ndax adduna bi kuy kontur mbaa nga yàq lislaam alxuraan a tax ndax bëgg a teg gim mu bëgg a teg nit ñi ci yoon wi ni ñi jëm ci yoon woowa ngay a di nga gàkkal ndax feeñ gu muy feeñ a tax mu ne fa durru yasdaadu xusnan wa huwa muntazimun wa laysa yanqusu qadran gayra muntasimi nee na wurus woowu ñuy wax wurusu durru dey saa bu ñu ko jëlee nose ko dajale ko ci génn buum da koy yokku taar waaye soo ko bàyyi woon mu ne ñu mu itam ak leeraayam ak lerkateem terewul mu am taar ñàkk geewa it tabaarakallaahu ñàkk génne so it du wàññi dara ci dara jaam alquran itam jéem a tagg gi ñu koy jéem a tagg di ci barkeelu fekkoon na mu am ko pare xanaa da suñ ko defee rek ah, dana koy yokk taar dana ñu yokk sax ndax boobaa ñun suñu bopp la ñuy yokk ndax yokkuñ ko moom waaye suñu bopp la ñuy yokk ndax ba tabaarakallaahu lépp ñu lay del si moo tax mu ne fa durru wurusu durru yasdaadu dana dolliku nan ci taar te woo mbir moom wurus wa muntazimun mu nekk lu ñu nose ci genn buum walaay sa yan xuuf déet muy wàññiku nag xadran ci daraja xayra muntasim bu fekkee nekkul lu nose nekkul lu ñu way loolu yàqul daara ci tedd ngay alquran ak màggaayu alquran ak fooraayu alquran tabaarakallaahu kon loolu mooy alquran mu ne bu fekkoon nag di ci ne فما تتاول أعمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم ndax loo ci wax lu ne taggee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla waxoon na ko yonent bi ba pare waaw parce que taggin wu ne daal taggoon na ko ci kon lu ci nit ñi xamee moom ah jëm ci géttalante guddalante njëkkante li ci nekk ci ay jikkook ay melokaan ak yooyu tabaarakallaahu pour pour pour ah barkeelu ci rek ndax loo ci wax itam am loo ci desal ndax yàlla moom ni mu taggee yonent bi façon ñu taggin la woo xam ne tagg woo mën a wax itam ah mënutoo koo paase isqalallaahu fiihi jalla jalaaluhu raufun rahimun fi misaaqi kalaamihi kon nag ana kan mooy ki nga xam ne mooy njëkkalanteeg yenentu boobu walla yàlla moomu ci tagg yooyu mu ne famaa ana lan dégg nga tataawulul amalil di ana lan lay géttalante mébéti taggkat yi wala lan lay xemeem wala lan lay yuqamtiku mébéti taggkat yi ilaa maa jëm ci loo xam ne fii nekk na ca loola min karamil axlaaqi ci da ngay jikko yenent wax na ko ba ak melokaan yi ba mu leer waaye rek ah bëgguma si yëf yi rek bëgguma si yëf yi rek kon nag wax dëgg yàlla moom foog rek euh, waxees ci dara rek loo xam ne maa la yumkinu kulla laa yudrak kulla ku sa dara jàppandiwul kenn du bàyyi waaye dañ ciy def lu mu waaye bàyyi noonu mu sedd rek noonu déedéet alquran ayaatu xaqin min arrahmani muhdasatun xadimatun sifatul mawsuufi bil qidami nee na alquran mii aayey dëgg la mi ngi bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne mooy aji xéewale ji gis nga tur yàlla yi fi nekk yi bëri na de waaye raxmaan la jëfandikoo foofu ah tànn ko def ko ci ndax raxmaan moom mooy tekki jéggale tekki wërsëg tekki sutura tekki lépp te alquran itam dañu ko wàcce ngir mu nekk yërmande ci bindeef yi kon wax dëgg yàlla mu jëfandikoo aayaatu xaqin min arrahmaani bàyyi ko minal bàyyi minal qahaar bàyyi ko minal wahab nangam nangam yëpp mu bàyyi ko fa ñëw ci rahmaan ah kon wax dëgg yàlla jaadu na ci nag alquran nag am njàngam fii comme baat yi nii nga koy jànge ak kaamil bii nga tiim nii ak yow mi kay jàng yépp lu sosu mbind mi nii nga tiimee kaamil bi uuf ko nii di ko jàng nii ah ak njàng mi ngi koy jàng ak yow mi koy jàng ñépp ñu sosu ngeen waaye nag loolu nga tiim ci kaamil bi di ko jàng mooy tegtale melakaanu yàlla wa nga xam ne mooy aji jiitu xam nga dañu wax ne wax ñaar la li nekk ci xel soo ko waxul xam nga ne kooku bu ko làmmiñ tuddul mu neex neexut a xam neexut a xam ba loo xam ne da kaa tudd nag loolu ñu tudd nag mooy comme mooy li sosu nii comme nii waaye loolu ñu tudd itam ci ngay sukkandiku mën cee xamee ne lële nga tudd mooy tegtee lële la ci biir la nga xam ne melokaan la ci borom bi da nga dégg way kaban inal kalaama lawil fuaadi wa innama juila lisaanu alal fuaadi dalila soo waxee rek ñu xam yaay kan waxal rek ndax li ci xel mi ak xol bi tabaarakallaahu moom la làmmiñ wi di interprété dégg nga kon lii ñu bind ci kaamil yi dafa sosu sosu googu nag nekk ay xaraf tabaarakallaahu mooy lii ñuy jàng loolu la ne muxdasatun waaye nag li nga xam ne ci lu sosu loolu ngay sukkandiku mu tegtal la lële nga xam ne mooy ak i taxawe jëmmi yàlla ji ñu koy wax euh, kalaamu nafsi waaw kalaamu nafsi nga xam ne boobaa moom du nekk ay xaraf du nekk ay baat li fi nekk mooy maanaa kese kese kese lay doon kom ni nga xamee ne boo ko xalaatee noonu nekkagul xaraf boo mën a bind nekkagul euh, dégg nga maam euh, baat boo mën a wax noonu rek la demee moo tax mu ne alquran aayaatu xaqin aayay dëgg la mina raxmaani bàyyi ko ci yàlla mi nga xam ne mooy aji xéwale bindeef yi yëpp muxdasatun mu nekk lu ñu sos ay xarafam am njàngam ki kay jàng yëpp des la waaye nag fekk na moom alquran xadimatun aji jiitu la moom alquran fekk na itam sifatul mawsuufi mooy melokaanu aji melowoo ji doon te ismu mafaul lañ ko tëgg nag waaye da nga firi firi nu ismu fail melokaani aji melowoo ji bil xidami ci jiitu ak njëkk kon alquran ma ngoog alquran lam taxtarin bi zamaanin wa hiya tuxbiruna an ilmaad wa an aadin wa an irami alquran moo ñu koy nettali lu dox mu doy waar mooy tabaarakallaahu fa la ñu jëm di yowmal qiyaama moo nu koy wax ndax dafa nekk téere boo xam ne tënkuwul ci benn jamono kese kese kese kese ndax bu fekkoon ne waxu nit la léeg-léeg buy wax ak jamonom wax ji mën na cëkk buy wax ci démb démb mën na paase buy wax ci suba it suba gi mën na dëppoo ak na mu amee waaye alquran moom mooy téere bi nga xam ne ña fi nekkoon démb jamonoy mille neuf cent ja wala jamonoy mille huit cent ja ña fi nekkoon tabaarakallaahu alquran yu doon mën a dund ak ñoom ñuy jël seen lépp di ko teg ci alquran di dund ak la nga xam ne moom lañ fekke woon ci seen jamono nga ñëw jamonoy mille neuf cent noonu nga ñëw jamonoy deux mille ji noonu jamonoy ëllëg itam tabaarakallaahu noonu boo gisee toujours tabaarakallaahu booy jàng alquran wala ngay xool tafaasir yi léeg-léeg nga xool rek xam ne daal yàlla daal mooy yàlla ndax jamono bu ne na mën a àndeek jamono ba waxtaan ak nit ñi loo xam ne day mel ni xar-xaru doj te nit ñi wuute nekk ay seekali seekali seekal seekal bu ñëw mu ànd ak moom nga war a xam ne kii di waxu nit de bu Busiri su ngeen xamulee loolu maa leen di wax loolu waaye itam ëllëg yowmal qiyaama dekki gaag yëpp alquran moo koy wax ndax yàlla moo ne summa innakum yawmal qiyaamati tubaasuun ak ay yaxsibu l-insaanu allan najma'a isaama balaa qaadirin alaa an nusawwiya banaana yooyu yëpp gis nga ko afalaa ya'lamu izaa bu'thira maa fil qubuur kon yooyu yëpp boo xoolee da ngay gis ne alquran moom ma ngay nettali lay xew suba mooy yawmal qiyaama ñi fi passé woon ci démb itam di Giraat ak Iram ak yént yàlla huud ak yént yàlla saalix ak yént yàlla ibrahima ak ya xewoon yépp alquran moo ñu koy nettali moo tam mu ne lam taqtarin du lënkoo lënkoo wut ak bi zamanin ci benn temps kese kese kese ne démb kese lay wax du wax tey wala tey dong lay wax du wax suba wala suba dong lay wax du wax démb du wax naaw démb ah déedéet alquran te déewul noona ah alquran te déewul noona moo ñuy xamal anil maadi ci delluwaay ba wayi moom alquran tuxbiruna danañu xamal anil maadi ca delluwaay ba te mooy yowmal qiyaama la fay xew ak nu mu fay tëddee alquran moo koy jàngale waa waan aadin ak giir googu ñuy wax giir aad ñi passé woon alquran moo koy jàngale waan iram yi ak giir googu ñuy wax giir iram la fa passé woon it alquran mooy ki koy nettali